li ñuy dalale suñu xel mooy may ñaan rek yéen ñi nekk fii di fi daal si seen doole waxoon naa leen fii dinaa leen fàttali bu leen kenn ni moom la xam nga kan la jël la jëlaat wa azza mm-hmm. yàlla du keneen ku dul moom ñu ma nekk xam nga sax moo métti damay tëj sarax ma rek mu tëj gars yi doyal nañ toog mu jot. sa bàyyi sëriñ. gars yi ñu ne ma onze onze heures. doyal ngeen. non non.

الله عنه ولا bu kenn njort ni anna allah lii mu ñu teg joxor la laa laa rab wa rabbil arshi loolu taxul am na yàlla boo xam ni day tax ñun mu dellu fa moom di tuub te baal walakin mu ci toroxal yàlla yaa baax te yaa tabe yaa bal juude wal jarami yay fay yaa yaa yow nii kenn ñëw nga sonal yaa waa sàkkute yaay di ko am jox ma te wax ma wéyal yow di loo dina jox foo tollu tey ma deral hamdan li rabbil azimil majdi azza wa jal moo mën na من شيخ تجاني المنع فلأنت رب واحد بصفاته وفعاله بشهادة تمتاز فلأنت خير مكون ومقدم ومهيمن تدينه الأحكام ما كل شيء في العوالم كلها إلا كما حقق به الأقلام أنا من بكثير شيخ تجاني فالشمس والقمر 他西边。 الثقلين في إرشاده يا من لكل المهتدين إمام صلى عليه الله كل دقيقة وعلى الغنى صلوا عليه وقاموا ما مثلك الأمراء أنت أميره في ملك أو في شهرة الأمام Yeah. وقد جفت الأقلام والعقول bu leen kenn du kenn yàlla rek kenn ku nekk ci loolu bala ngay judd yàlla wax na désigné fan nga jëm ndax di nga dem Brésil wala doo dem Brésil bala ngay judd wax na ñaata fan ngay dund bala ngay judd wax na ndax di nga am wala doo am bala ngay judd la ñuy jël ba booy judd ñu takkal la ko sa baat malaayikatu rahmaan yi nga xam ne ñoom la boole doomu aadama yi te ñaar fukk lañu ñoom ñooy topp doomu aadama bu nekk yàlla nee na ma yor ci malaayika bu ma leen wàcc woon suuf kenn ku nekk jël benn pépp dina am malaaka yu amul te ñii amul ñoo ëpp wa maa yaalamu junuuda rabbika illaa huwa kenn ku nekk yàlla waxoon na ne dina ñëw fii na ñëw fii ci mbaaxam ak kàttan koñ ba nga jógee koñ ba sa fukki moroomam ñu bëgg lu mel nii yàlla xëy leen mas naa koo laaj gaa yi leen lan ngeen defal yàlla bu mu indi leen fii ak ñam fa bàyyi lu ñu ko def ba mu xëy leen wàcc leen mais xam nga ngeen ma ca tontu ma ne nan ngeen def ak yàlla ba mu indi leen fii waaye ñoom bu ñu def yàlla ba mu bàyyee dara Nếu nó không thờ, thầy có cái mà đời Vì có lắm mà có đánh lu tax joxu leen ko ba ñu fii ma laaj leen fi ne kon lan moo war seen diggante ak seen borom ngeen ah. kon jaamu jaamu jaamu force la kon sant ngeen nan ngeen koy sant ak sant kat dafa bari dafa am dafa laaj dafa am ñu tuddee xam-xam xaw yi ak xam-xam fiyaal yi sant wax ak sant jëf sant jëf mooy lan ma ni sant wax ak sant jëf mooy lan. sëñ bi laajaan nan la ko de. président sax sant wax ak sant jëf mooy lan. ah. Ablaye Thiam. ah. ma ni. jërëjëf. koor yi noonu moo tax yonent yàlla daawuda dafa lottoon jaaxle ni yaa rabbi kayfa ashkuruka te wa shukri ni'matul lak nu ma lay sante xaw ma su demee ba war laa sant cant daf tey war a parce que kon mënu ma laa sant mu ni ko laala shakarta nii lott ji def naa ko muy cant gi julli yi dara sabu boo ko deful cër yi sa cër yi ñu ngi koy xam nga la mooy mu bëgg xam nga loo koy nga fexe ba yow jullit bi sa moroomu doomu aadama bi lay romb doo moom du ñaaw mooy yow jullit bi